borom bi ñëw ci aaya bu tiitlu bi ne wa jaat sakratul mawti bil haqq dalika ma kunta minhu taxiid yow doomu adama fi nga jaar lépp li nga am sukuraat a ngi ñëw sukuraat mi ngi ñëw sukuraat moog yow ñoo ànd dee moog yow ñoo ànd foo jëm dee ngi ànd ak yow dañoo nekk ci tool boo xam ni dañu ko ñàkk kenn mënut a génn borom tool baa ngi toog di seetaan mango yi garab yi saa bu xëyee wër lu ñor mu dagg lu ñorul mu bàyyi ñun ñooy meññeent kenn ku nekk ci ñun malakal mawt dana xëy fóon sa bakkan xool ndax ñor na wala ñorul xool dossier bi bu ñu koy dagg paaka lañ ko war a daggee wala fetal lañ ko war a daggee wala oto war a dal sa kaw wala dañu la war a agressé wala dangaa war a feebar sonn kooku moom bu xoolee registre bi gis ne ah Ablaye Ndiaye moom mi ngi war deewee ndeysaan jam ñaajo croisement jam ñaajo la war a dee six heures pile fa la war a dee amaan na nag mu am ñett ñu mu àndal ñu tolloo même date gis nga bu ñu tolloo date bu ñu war a gaañu war a gaañoo croisement ba nga xamante ni ci li ñu war a gaañoo accident lay doon yàlla day programmer ñu duggandoo oto bu ñu xamante bu ñu xamantewul nan la ñuy duggandoo oto da ngay Grand Yoff jël taxi nga ni da ngay di dem Kaolack mu wàcce la boo maraîcher nga wàcc foofu fay dugg jël tata wala nga jël bus wala nga jël sept place nga dugg Fatima moom it jóge këram ñëw dugg yéen ñaar yéen a ngi toog yéen a war a dee te kenn yëgul ni daa war a dee yéen a ngi waxtaan li ngeen dese ci àdduna kàddu yi ngeen dese jékki beneen waaye ñëw salaamu aleykum nuyoo moom it bokk na ci ñetteelu ñuy dee ñetti nit bokk cette place war a dee te kenn yëgu ko kenn yëgu ko kenn xamu foofu li fay dimbale mooy jàmm yàlla gis nga waxtu wi 6 heures la su ngeen waroon depart 4 heures oto bi gaaw nga xam ne dana àgg balaa 5 heures te 6 heures ngeen war a dee programme di retardé chauffeur bi mbaa oto bi chauffeur bi day tëdd nelaw fàtte ko gars yi da waaye ana safar kii ginnaaw muy bëgg a dee da ngay yàkkam mais bu mu ñu tardé la waaw wax nga dëgg waroo tardé parce que da war a dee bu mu ñu tardel ñëw kaas yuugu safa bi ne leen bàlle ma dama doon nelaw ñëw bay bëgg a départ apprenti bi arrière di xëccoo kenn xuloog moom ñuy atte bu leen ñu fontoo waay nit ñi dañuy dem xëccoo balaa départ gars yi tee ko mu départ minutes yi des su demee àgg të mu génn policier tee ko quelques minutes mu jékki pare foofu dem ba Kër Massar war a demaat moom am embouteillage non dëkk bi kenn comprendre quoi dëkk bi dafa xat fekk yow la ñu programmé nga war a dee ci heure bu dul jiitu allahu akbar yàlla mooy hakim noonu ngay amee ay tardement ay tardement ay tardement ba jamono booy ak si jam ñaajo day tombeek heure bi juste oto bi la war a jël wala bi war a dal seen kaw ak ni ko yàlla programmé kenn do xeef ak xif bi lay doon dañuy jékki rek dégg tël rek gaa yi yuuxoo daw bu nu yuuxoo daw borom bi ne wajaat sakratul mawti bil xaq ndeysaan accidenté nga gis borom mu leer la ne mu ngi ci situation boo xam ni mënoo ci dara wallahi foofu la mettee nga tiim nit mu leer la ni mënoo ci dara nga gis ko mu nekk ci nazo di sukuraat amee métit boo xam ni munoo koo defal dara dara dara soo ko nee massa du la dégg soo ko laalee mu onk yuuxu munuloo koo laal ñi wooyi sapeur sapeur war naa ñëw di nga dañoo yaakaar ni bu sapeur ñëwee yóbbu ko hôpital mu wér sapeur day tardé xam nga suñu tëli yëpp am problème oto bi day départ tëju dara du mën dem ngay nekk di xëq xëqi ba dee ñu muur la mor sa dara dootul def sa kanam da doon feeñ tey feeñatul dañoo muur lépp ku ñëw oo oh, accident bi oo oh, diw ndey sa oo oh, way way way ñi la xam jooy ñi la xamul ñu ko seen kër amaan na sa jabar daa demoon xew amaan na say doom dañoo nekkoon ci dara yëguñ ko dañuy jékki rek coup bi agsi ñu ne diw moo accidenté diw moo dee yàlla ne na zalika ma kunta minhu tahid lii nga weddi woon tey mi ngi nii